bi nag waa ji ñëw na ki nga xam ne moo war a def reportage bi nga xam ne moo war a dugg ci TikTok bi ak YouTube bi ak le monde entier ñu bëgg nag Sénégal tey danoo am koo xam ne dafa ñëw tey pour defal ñu interview ci sëriñ bu mag ñu di ko wax kan Abou Bilal ku ne xam na ko ci Sénégal ak monde mooy liggéey liggéey bu rëy di fekk nag fekk bu ne fekk bu fekk nag moom gis nga déjà li ma commencé wax rek yaram waa ji commencé tàng mooy ñaanal président Macky Sall di ñaanal Amadou Ba di ñaanal Ousmane Sonko di ñaanal Idrissa Seck kon nag ku mel noonu kooku nag defe naa Sénégal ko soxla kon nag mu ngi nii waaw sëñ bi nag lan nga wax ci li nga xam ne nag moom nga ñëw tey ci abu Birane balaa yaram mooy tàng. en fait c'est c'est ce qu'on a dit hier là pour Bon, hier on s'est on s'est entendu sur le contrat et ça aujourd'hui on commence. voilà moom nee na dafa bëgg a ñëw commencer pour wan la waa àddina nga wan àddina ak le monde entier kan mooy Abdou Bilal xam naa la te sax waaw. tey lay dégg lu musul dégg na ko bu pare pare nañu. bu tàmbalee tàmbale nañu. nee na boo paree yow nga xam ne yaay def interview. je ne parle euh, au niveau de au commencé. la Grand Mara de Abou Bilal bon pour euh, des pour le monde entier reconnaître le écho le Mara là donc tout à l'heure on va commencer euh, le TikTok donc euh, s'il est on commence s'il est prêt on commence nee dafa bëgg actuellement nga commencer TikTok bi ak YouTube bi démarrer nañu pour nag nga wan àddina sa bopp waaw ah ndigal lay xaar ndigal ci moom pare na. moom pare na ayca waaw. donc euh, bon euh, allez-y allez man rek man rek moi rek moi moi moi. Ah, ok ok na nga commencé nga wan waa addina li ngay faj. lu mu doon sëriñ Abu Bilal sëriñ bi nga xam ne may gis lu kenn gisul sama façon seet amul fenn ndax seet mooy di seet loo gisul loo gis ba pare jarul nga koy seet. maay seet si dàll di tekki ay musóor di firi nit di ko létt di xool lan moo ne ci bopp bi bu dee sëriñ bi nee na je traduire au niveau au au au maratis je niveau au donné la vie privée je connais te répondre sa vie ñi nga xam ne ñoo nekk France te bëgg maa jot am na numéro boo xam ne mu ngi ci suuf bu ñu jëlee numéro boobu boo dama allo dinaa wuyu te bu ma la seetalee par téléphone da kontaan xam ne man li may seet kenn mënu koo gis nee na au reportage la TikTok wala YouTube au fond di suuf un numéro boo ko boo xam ne la contact de Serigne de Mara au niveau de sa vie privée ça donne tout le monde. damay joxe wërsëg ku bëgg tukki problème mu kee problème mu visa kuy dem ci gaal gi bëgg a dem te ñëw Espagne te am ndomba boo xam ne soo ko takkee da ngay dem da ngay ñëw da ngay jaabante mu la neexee te doo can ci yoon bi. nee na je niveau. Généraux au, au Espagne, au Londres, en France, Généraux, Zomba, ça, ça, ça allait, ça retour, avec l'argent. bu fekkee ne da ngay def examen da nga am bu dee da ngay def politique pour nekk président man maa ci aay man maa ci aay. moom man maa ci aay bul daanu et crise ça crise la mara là ça coupé ça coupé en émission. Ça a coupé. Ça a coupé en émission. La mara là, vous êtes très fort. Mmh. Ça, ça, ça, le lion. C'est le lion. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc euh, là, tout à l'heure, je vais monter. Wow. Et tu verras. <laughs> Même Joe Biden va t'appeler. Hein? Wow. Je vais monter, je balance. Je vais monter, je balance. je pense ils sont équilibrés. Emmanuel Macron. Joe Biden. nee na Joe Biden tanat ti prantoo moom nolok mënooy nekk fii suppuka jamadaa euh, maafe te doo dégg olof paa ah, te parle ak ah, nolok ils ont vu ils ont vu la vidéo c'est nga xam ne li mu liggéey dëgg la <laughs> xawul caaxaan jërëjëf à merci merci beaucoup. beaucoup beaucoup merci. merci beaucoup merci. de rien dans la vie beaucoup merci. waay waay waay le bien dans la vie. siiw nañu. tàkk la siiw a gaaw mat. sunu ñàkk daal nañu ma ñu ce que xam ne réseaux sociaux yi. ku si jaar doo yéeg ci kaw. ku ci yéegul doo jëm ci kaw. ma ne yow addinaa la so soxla. ah yow abu bi la. kon addina bi yëpp gis nañu ma. gis nañ la ah. numéro téléphone bi dem na. dem na. sur les réseaux léegi ñu commencé woote. xam naa waaw te man man la leen sonal rek. parce que ñu man nañu war a sonal waa man man mii man kay lañu war a. Amadou Ba oo na ma dem ah Ousmane Sonko oo na. ñooñu may ñooñu ñooñu nag ci kenn yow bàyyi bu la ngay téye ci bloqué numéro yi. Ah, non booba da ngay nelaw mu bañ xam. <laughs> Ah, sëriñ bi buy nelaw. di nga engagé loo mënul yeru de xaaral baax na ko leer naa la ma dem naan kafe waaw baax na def nañ interview bi daal mi ngi noonu saa yi taal nañu ko tàkk nañu waaye boogaa alaaji boogaa tàkk nañu oh! <laughs> ay bu ñu xamoon li ma xam <laughs> ay li ma xamoon li ma xam man nii réeral te mënuma koo gis mënuma seetal kenn salaamaaleykum salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. soxna ba ma def loolu yi ma ko sëñ bi laa doon seet depuis début ba tey maa ngi woote mais daf ma woon na ma dinaa la woo mais maa ngi koy moo taxoon ma ñëwoon tey suñu bopp. kan mi. waaw man mii. moo si téléphone na de. ci la dëgg soxna bi loolu lépp indi moom man sëñ laa soxla bu ne nga mën naa ko gis bu ne nga mën nga ko jël soxla nekkoo si liste bi. son doo baax nga xool bu baax bàcc ma sàmba seen doo xool bu baax ba xam doo ko gis bàcc ma sàmba seen doo xool ba xam doo ko gis lu nga def. Martial. daaw yi gis na xëy na tonton nga ne daal lii. façon bu ne moo fi ñëw seet bi laa bëggatul dara dara dara dara. te yàlla. sëñ bi nag dëkk bi tàng na fii. waaye yow mooy soo sama code bi dama koo jël teg ko fële ca kaw. ah yaa yooyu ah, kon tey moom wax dëgg yàlla tey moom damay noppaliku moom tey moom wax dëgg yàlla damay noppaliku tey moom damaa sonn. client bi ñëw barki démb nag gisuma la te waxoo ma dara. waaye yow bàyyi waaye client bu ñëw fan yi client yi client bu ñëw ngay client yi ñàkk solo ngay indi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. ça va. ça va ça va. ah déedéet jugal jugal waaye jugal toogal ci kaw toogal toogal. na nga def. ça va. naka jàmm ji. waaw ñu ngi sant bu baax def. waaw ñu ngi sant sëñ bi la. démb maa la doon woo démb si guddi. ah waaw ah, waaw waaw gis naa ko waaw ah, gis naa numéro bi mais xam nga boobu maa ngi wér maa ngi wér ah. Eh, léegi moom la dëgg dama toog ba sonn déggu ma la. waaw waaw waaw. oh waaw dama koy fàtte. xam nga am nay liggéey yoo xam ne. waaw waaw baax na. maa déranger ma la. déedéet déedéet. waaw man maa la doon wax ne maa yoru mouvement bi. Hmm. waaw xam nga Dakar moom dafa bëri mouvement. Hmm. dafa bëri ñoo xam ne dañu maa teg bët. léegi ma doon seetlu fii. Hmm. ba xam. mouvement yow daal da ngaa bëggoon sëriñ ah. ak nga xam moom nga yor. ba xam daan avancé kon sëriñ bi di dégg nga li mu wax. moom da ngay ah. moom damaa waxoon sax du ma du ma seet. waaw jàpp na xaj na muy bi dugg na ba pare. boo gën góorgóorlu de parce que lii ma gis nii moom buntu mën na cee feeñ de waaye dafa dafa lëndëm daal ah yéen yoroo sarax bi sarax bi yoroo ko Euh, booy sarax yi génn fii daal yaakaar naa ne su ma la ko doon calculer ko mën daal ay peeg egg na presque ay cent et quelques daal xam naa ne ñaar fukki junni yi teg yooyu doo leen ko mën xam nga yéen moom comme que da ngeen xam nga àdduna loo gis nag da ngay waxtaan ak moom waaw mais sarax si génn fii waaw comme que ñëw na te tamit moom da nga koy xam ci sarax bi nga ko wax nee nga ko ñaar fukki junni yi teg na ah da nga koy déglu rek nag yow sëñ bi nag man daal sëñ bi yow loo xam ci li mu wax moom sëriñ bi ñaata la ñaar fukki junni waaw ñaar fukki junni ñu teg daal la wax. Ah, de toute façon incha allah dinaa la envoyé un million. dégg déggu déggu wax bi de. ma ne de toute façon dinaa la envoyé un million. nee. dégg nga li mu wax. nee na dinañu envoyé un million. waaw moom la wax mi ngi nii. billahi nelaw ma. wala message boo xam ne. muy yow. man maa ngi ñëw yee. Eh, déedéet déedéet toogal toogal toogal kaay kaay. xaaral xaaral am na beneen sarax boo war a génn pour yow réew mi waaye yéen a ko yor yéen ay gagné mais sarax bi boo koy génne billahi booy maa la ko wax booy génne sarax bi foo nga génn ci réew mi ndax réew mi poñe ngeen koo pare sa candidat bi mooy gagné foo nga génn la poqataanu ñay hmm. waaw hmm. poqataanu ñay nga may indi ma tàll léegi mu takk ah, léegi maa la ko wax bu ko waxee am na de maa la ko wax yéen yéen a yor yor yor réew mi waaye day day la waaw baax na dinañ dégg jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf xam anam xam nga lu ma la yëgal waaw na nga booree nag un million lañ la jox tey na nga ma jox waaye xaalis bi dugul waaw man bu demee xaalis bi ñëw la bi dugul indi portable bi gis nga gis nga waa transfert yi des fois dañ message. nee na fii ñaari fan xaalis bi dugg. ñaari fan amu fi. na dama ne xaalis. message bee ñëw waaye xaalis bi duggul. baax na.